ñoo ngi gërëm yàlla mi ñuy indil cheikh ahmed tijani parce que cheikh ahmed tijani ñas ñëw fi moo gën taw sax ñëw fi ndax moom bi fi ñëwee xol yi dañuy fees ñëpp àndoo nekk benn zikr jublu ci yàlla maa ngi njëkk a nekk murit ndax man sénégal laa juddoo louga laa juddoo jóge fa nekk qaadir am naa ñaari taqdim ci qaadir waaye li ma doon wut mooy xam yàlla jotuma ci lu dul bi mu ñëwee ci tariqa cheikh ibrahima ñas cheikh ibrahima ñas mooy tariqa bi nga xam ni ku bugg a xam yàlla fii nga jëm waaw ko foo